Sénégal nak nek réew mo xamné du réew bu am doolé bu baax ci walu alal waye gis nañu né mesure yi ñu jël tax na ne neex dëgg Yalla bo ñu comparer ak réew yi nga xamné ne mooy réewu tugal yi ah Sénégal gatch ngaaraam boo xoolee it réewu digg doom yi ñu andal moy Afrique ah Sénégal dal mu ngi ci position bu baax té nak japp nañu sax né population sénégalaise yi bu fekkone mesures yi nguur gi jël mooy tere ku dem dëkk ak dëkk respecté nañ ko kon kabu bu Sédhiou bi du am kooku du jóge Louga yóbbu maladie maladi ba Sédhiou kon jàpp nañu ne euh, nguur gi jël na matuwaay yi ba mu mat sëkk waaye nag ah réew mi tamit am na ñoo dal ne daal dañoo indiscipliné respecté wuñu trop mesures yi loolu sax moo tax xëy nañu egg fii waaye tout compte fait boo xoolee résultat yi ñu am résultat yu satisfaisant la par rapport à réew yi ci aduna bi par rapport à moi yu ndaw yi nga xamné Sénégal mom la ministère de la santé nous ñu ngi concentré wu di xeex ak mbass mi ñu ngi leen féliciter au passage di féliciter les médecins di féliciter le personnel de soutien administratif di di di di di féliciter les paramédicaux c'est une armée qui est en guerre sous l'autorité d'un général mu le ministre de la santé je pense tay dit loolu la yàlla dogal. kon kooku euh, nga bëgg ko ak nga bañ ko war nga ko jàppale ndax bu daanoo Sénégal mooy daanu kon kooku kenn waru ko distraire te fan yi ñu ngi dégg suñu ay mbokku syndicalistes parce que man dama lay fàttali ne man dama nekk ci syndicat santé dama bokk ci syndicat euh, ba pare dama yor kuréel boo xam ne association la di xeex ci wàllu santé ñu dégg ñu ne euh, pharmacie nationale d'approvisionnement moo waroon jindi ay masques ak leneen loolu ñu wax ne du du pharmacie nationale d'approvisionnement La pharmacie nationale d'approvisionnement kenn mënu ko séparer ak ministère de la santé Le ministère mooy Le loolu benn la ñaar rôlam de commercialiser ay médicaments génériques mettre à la disposition de ces PRA PRA yi pharmacie régionale d'approvisionnement région bu ne am na PRA ñooñu bu ñu ko jox centre de santé masque chirurgique ko itam jox pour mettre mal médecins yi nga xam dañuy opérer mom lañuy tak donc bi aduna bi des manqué masque ba chinois yi ci Sénégal di jënd masque ñu gis ne boitu masque yi di 000, jar 3000 wala 2000 dem na ba 30000 nguur gi jël ay dal di PNA li ngeen ci stock pour jox ko hôpitaux yépp téye leen ko bu leen ko laal bu leen ko jaay bu leen ko laal té kenn xamul ëllëg lan kon mesure bobu lu saluer la wa lolu nak dafa bokul dara ak besoin yi nga Sénégal bi mu décrété né masque bi dafa obligatoire ci lieu public yi koku besoin bobu énorme pour 16 millions de sénégalais le ministère jël ay matuwaayam jël ci 2 milliards 500 yi ko nguur gi jox président mettre à sa disposition jënd ci matériel yi ñu wax li des masques ci des mu jënd gel hydroalcoolique donc dama japp ne loolu syndicaliste PNA yi doon wax vraiment ah du wax mauvaise foi waaye japp naa ne ñoom xam nañu PNA rôle PNA du jënd ay masque rôle PNA c'est pour commercialiser la PNA commercialise des médicaments mais Sénégal am na ay répartiteurs am grossistes dans d'autres domaines yuy jaay ay produits consommables des hôpitaux mu ngi mel ni su ma la koy firndeel tey nga dem hôpital Albert Royer am na batiment bu fa am bu bees tàq hôpital moo ko tabax néonatologie la tudd service bu mag la bu rafet pour jël en charge xale yu doog a judd waaye service boobu nguur gi moo joxe xaalis mais def ko jox hôpital Albert Royer directement hôpital Albert Royer def commande directement waaye am na tey service bu fa nekk bu tudd chirurgie infantile kooku nguur gi moo def commande directement teg ko ci loxo Albert Royer kon ki nga xamne mom mo la ëmb bu demee jënd koku jaakaar naa ne coow waru ci am d'autant plus que lepp la ci am moy amna transparence kon dañuy rek wax ne nañu maytu distraire ñi nga xamne tay ñu ngi japp yor wér gu Sénégal ndax yor wér gu Sénégal kenn waru ko fowé kon ne nit yi jël sen matuwaay bu fekk ne tay gis nañu lo xamne dafa jaaduwul ah bu boba ñu bàyyi on mbir yi évaluation nit